attention du 100 pour cent justement non mais quand même nangul ni au minimum c'est à 90 pour cent. au moins non même rek donc loolu sant yàlla la Macky Sall dafa sant doit se réjouir nga jiite parti pendant 12 ans ak coalition ni mu toll ak coalition parce que yow Macky Sall a fond benn kenn la jiite la muy APR ah fara am kàddu yenn parti yi lu fu leen bu ñu réunion du ko sax fekkee. justement waaw même rek yàlla dimbali la ba sa bëgg-bëgg bokk ak bëgg-bëgg ñi nga àndal ñëpp. mais Amadou doit se Amadou doit se réjouir ci loolu Macky Sall daf ci réjouir ñun ñëpp ñëpp est-ce loolu war nañu ko yàq. Birima non est loolu war nañu ko yàq. Birima xam am na ñuy liggéey na mieux am pour Macky Sall reporter élection am na xam nga loolu waxi dof mënu ko passé mais nag xam nga dafa sama xel dal ci. mais ñiy liggéey loolu dañ ne pré loolu dañ ne euh, président loolu la bëgg ah. xam nga da nga jàpp ne yéen xale bi jàpp ma yéen. ma ne ñiy wax loolu. sur le saint coran c'est pas vrai bi mooy président dañ ne c'est archi faux je te confirme que du dëgg. bu ñu ko joxee des raisons on peut reporter. ces élections mais dama ne élection ñu reporté ko arrangé wul réew mi. arrangé wul réew mi di. arrangé wul Macky Sall. baaxul ci kenn. donc lan la Macky Sall di yërëm réew boo war a dem pour noppali nekk ci leneen di def loo xam ne du njëriñu réew mi du njëriñam ban njëriñ la pour ñu fi def loolu. loo xam ne mooy sax taal Sénégal pourquoi le faire yéen da ngay xam ne Macky Sall yéen attends l'instabilité de ce pays euh, kan la gën a kan la gën a kan la gën a inconclu Macky Sall kan moo gën bëgg jàmm ci réew mi